te ni loolu yi am nag euh, Adji Sarr dañu ko recevoir de vrai que taalibe la war nañ ko mën a recevoir mais ci jamono gi mu ko recevoir est-ce que jàpp euh, mënul jur coow ak ay jiixi jaaxa yu bari. en tout cas daal Ibrahima Gueye nay leer la ma waxoon ca dossier Adji Sarr ba ca départ ba la ma ca woon ba tey jii ci laa ciy wax comme mën a doon ngay kilifa ak diine ngay kilifa ak aada ngay ab politicien ngay ab procureur ngay ab magistrat ngay ab policier ngay ab gendarme comme mën doon. nga dugal sa loxo ci dossier aji saar bii ci complot Ousmane Sonko bi ak koo mën a doon laa wax suñ borom dina rëq sa ndigg boo dugalee ci complot ga ci duggee laa wax koo mën a doon damaa bàyyiwut kenn nag koo yaakaar ne yow laa yow yaa tax may wax dossier Adji Sarr bii Ousmane Sonko ku ci dugg ci complot bi dugal sa loxo ci complot bi ak koo mën doon suñ borom jàlla jàllaloo dana rëq sa ndigg ak kàttan goo mën a am. dana rëq sa ndigg nga yëg ko nit ñi yëg ko wa ilaa nga suñ borom rëq sa ndigg. nga yëg ne suñu borom rëqal na sa ndigg ci complot bii nga dugg ndax fukki bakkan ak ñeent dañ cee dee te ku ne xam na ne ak ku mën a dayalal Adji Sarr ku ko mën a recevoir na nga xam ne Adji Sarr ciy tappale la lekk te xam nga ne ciy tappale la nekk xam nga ne Adji Sarr ciy tappale la nekk boo bëggee ànd ak moom ci tappale yi yaag moom yéen a yemam atte comme mën a doon laax nag koo yaakaar ne taxul yaa waxuma la yow yaa tax may wax dossier Adji Sarr bii dafa rey fukki nit ak ñeent yàq ci réew mi di njëpp ñaari at yàlla Sénégal amatuñ fu ñu jëm mu nekk ci tap ay fen yu leer nañ ànd ko ay politiciens comploteur rey doomi jaamur yi ubbiwuñ ci enquête kon nag képp ku ci wax boo fekkee ni mënoo wax dëgg na nga teel a dellu ginnaaw xam ne lii wala nga xamal ko ne lii nga nekk du dëgg ak ku mën a doon nag laa wax te te nag mbirum mbirum mers ji nit viol ak njaalo képp ku ko def doomu aadama nga bokk ci complot ba suñu borom dana rëq sa ndigg te insha allahu taala boo duggee ci sa bàmmeel da nga xam ne yàlla rek kay buur ak doole joo mën a am na ak baat boo mën a am dëkk bi nañ ko teg ci dëgg Adji Sarr mënul toog ànd ak ay nit ay ñoom Mamour Diallo ay politiciens ñoom nekk si ginnaaw ay Macky Sall ak procureur Bassirou Guèye ñëpp nekk ci seen biir di comploter ñaari at yàlla mënuñoo atte dossier bi kilifa yëpp yëg ko nga dikk taxaw jàkkaarloo Adji Sarr bëgg a taxaw dugal nit ñi ci ay leçon de morale te ay doomi jàmbur dee ci seeni waajur toog di jooy loolu ku ko def nanga xam ne boo tëddee di nelaw suñu borom dina sa ndigg ak koo mën a doon ndax Adji Sarr nekkul ci dëgg ci ay caaxaan nekk te dëgg moom dañ koy wax Adji Sarr nekkul ci dëgg nañ ko woo xamal ko ne ko nekkul ci dëgg mu jàkkaarloo Sénégal yi jéggalu Macky Sall jël ay responsabilités am xam ñu bokk ci complot bi tëj leen ci kaso bi. suñ ko defut bu buñ fi jógee 11 mois yi fi des. Cour pénale internationale dana jël ay responsable dana jël ay jël ay ay porté leen plainte Cour pénale internationale ñu ubbi dossier bi xool doomi jàmbur yi ñu leen rey ku ci sa responsabilité nekk rek da nga da nga da nga da nga da nga jël sa wàll. ndax réew mi dañ koy foye foye am réew weesu jël suñu état bi état bi lépp nga déployé ko ci benn viol boo xam ne ni amul ay preuve te médecins yi weddi nañ ko. commandant commissaire bi weddi ko capitaine bi weddi ko ñu koy jël ab dossier jël aji saar doomi jaambur ji tëj ko ñaari at yàlla wuuteel ko ay garde corps ñu koy garde ñu koy taxaw naan diw recevoir na ko diw recevoir ko ku ko mën a recevoir boo ko waxul dëgg liy dëgg ci complot bi ngay bokk d'accord mais ci loolu ci loolu si Ibrahima parce que euh, yaa ngi wax que ni Adji Sarr xëy na état dafa nekk ci ginnaawam ainsi de suite ñu gis euh, récemment Gabriel Kane génn wax que ni euh, état bi mi ngi koy seetaan dafa commencé am ay fuite mémoire est-ce que tey ñoom bu ñu nee état bi yéen bu ñu naan yéen bu ngeen naan état bi da koy dooleel ñii naan état bi da koy seetaan instant mi ngi commencé am ay fuite mémoire est-ce que njortu nga ni loolu tey noo ko mën a comprendre rek quand li may laaj waaw qui est responsable ci problème aji saar actuellement kan moo ko yor kan moo ko yor état kan moo koy garder état kan moo ko war a àtte état kon lu ñu mën a wax état lii mën a wax yëpp Ousmane Sonko yoonam nekku ci ma nga nee toog dossier bi suñ ko bëggoon ñëw nañ jël dossier bi dossier bi xam nañ leen dara nekku ci ay tappale la Adji saar dama ne la li gën a tuuti ci moom mooy mu am ay problème yu dafa yooyu li gën a tuuti ci li koy dal li fi laa la ko wax ndax mu ngi tël di foye dundi doomu aadama yi bakkani doomu aadama yi mu koy foye léegi li ñu génn ko muy def ay conférence de di di sarab di ñaawal nit ñi ngi dikk taxaw naan Adji Sarr dafa am ay problème kan moo ko indil problème kan moo ko indil problème Mamour Diallo na wax Mamour Diallo ñoom Macky Sall ñu ko dugal ci complot bi na wax ak ñooñu état Sénégal war a jël ay responsabilité mbàyyi doomi jàmbur ji ndax ku ci nekk moom Macky Sall mu ngi yor ay doomam Mamour Diallo ngi yor ay doomam magistrat yi ñu ngi yor seeni doom bàyyi doomi jàmbur ñu naan dof naag dee nag lii lu ci mën a xew ñoo xam seen ñun suñu yónneewu ci fañ taxawoon démb fa la ñuy taxaw yéen a yor seen dossier def ngeen seen i complot li ci xew xew na ci assumer nañ assumer seen responsabilité justice Sénégal ak ay bokkam ak Macky Sall nañ jël nañ assumer seen responsabilité fii laa leen waxoon ca démb ne leen Ousmane Sonko dossier bii képp ku ci laal sa sa nam sa nangam daan dina tàng jër. <laughs> lu leer laa la wax. ku ci laal lii dossier bi ku ci laal da nga dem ba xam ko yow ak sa njaboot nga xam ne yow lii nga dugg du yoon ñi xam lu xew bu yàgg lañ rocc ko yaa xam mbay anam kañ ngay dégg yaa xam mbay. pourtant ci tàmbali ba danaa dem ci télé di wax de waaye ba mu jógee daan day def émission daanu malaise ñu bu ko France mu ñëw ca la bi ana ak ñeneen ak ñeneen te nag ku ci ku ci waxut ci kawit yaa ngi yëg dara ci suuf ndax dossier bi ay doom dañ cee dee en tout cas daal mbiram Adji Sarr lu ci yëngu ñoom la lu ci sedd ñoom la ñu sant ñëpp mais xalaatoo que temps yi déggoon nañu fi ay clé USB bu jaar ci 10 millions <laughs> euh, ci mbiru xalaatu leen ba tey que ñu génn leen benn vidéo boo xam ni dama ne danañ ci danañ ci wane dama ne ñii buñ amoon jom mbiram Sonko dañ koy tekki suuf mais nit ku ñàkk jom xam nga nit ku yàlla nar a toroxal chaque jour loo torox da nga koy xeet loo torox rek da nga koy xeeb ñoom mbirum Ousmane Sonko Adji Sarr ku ci amoon jom gis ñi ci ñi ci ñàkk seen bakkan gis ñi ci tooñ gis ñi ci am ay problème yow ci sa bopp yaa war a rëddi la mais léegi nag dafa am lu ko jaral Macky Sall dossier bi moo ko jaral lu ne waaye xamut ne moom président Macky Sall moo xamut ne wa jasaa'u sayyi'atin sayyi'atun misliha suñu borom nee na jëf ju ñaaw jëf ju bon jëf ju bon rek la ko yàlla fayee te it hal jasaawul ihsaani ilal ihsaani jëf ju rafet jëf ju rafet rek la ko yàlla fayee président Macky Sall ci boppam laa wax nday mbill gi nga xam ne mooy gardien de la constitution président tous les sénégalais lépp lu xew di Sénégal moom am na ci responsabilité dossier bii na xam ne am na lu ko ci xaar te li ko ci xaar dana jël wàllam moom président Macky Sall dana jël wàllam de ndax lépp lépp mooma lépp jaarale ko ci ay procureur am ay magistrat ay ay numtu ay magistrat moom jaarale ko ci ay politique yooyu ñu mel ni Mamour Diallo comme politique yooyu yëpp mooy responsable ndax li mu bëgg li mu yéene li muy ñaan di ko deflu yàllaa ko yor te yàlla du dumal kenn ab noonam yàlla du royal kenn ab noonam lii muy asarne wu ci kaw président son ko du yàgg ba am njëndam Macky président Macky Sall déglu ma bu baax a baax yow du yàgg ba nga am ndam ci kaw Ousmane Sonko. man Ibrahima Gueye nay leer maa la ko wax du yàgg yàgg ba nga am ndam ci kaw Ousmane Sonko ginnaaw na amutoon ndam ci kaw Moussa rek yow xam nga ne doo am ndam ci kaw Ousmane Sonko ak loo yaakaar nag. ñaar yooyu est-ce que bokk nag si Ibrahima. déggoo man su ma doon man man su xam nga man man sama sama tànn. samay wax. du ma ko waxantu président Macky Sall xam na ne mbooleem ba ma dalay wax ak moom ba tey lu ma ko wax lu ne pour jàjj ko pour delloo ko ginnaaw moo tax ma koy wax ndax su ma sañoon. mu am ndam su ma sañoon Sénégal du demee nii ci moom ndax 2011 bi ñuy xeex 23 juin koroog bi may ñibbi parcelle solu may daal ndax xeex yàlla xam ne li ma lay wax koroog bi ñuy dàq pharmacie moom muy daw ànd ak ñaari doomam yooyu ak jabar ji di daw dugg ci oto bi billaahi wallaahi tallaahi maa ngi taxaw jàpp ci giri assemblée nationale yi bi ñu jël Alioune di ko daaw rawale maa ngi taxaw bi ñuy wër kii bi naan góor gi dee na leen ko di wër monument monument di wër rond-point boobu ci monument bi ci buntu assemblée nationale maa ngi taxaw ci laa bokk man ay principe laay xeex dëgg laay xeex président Macky Sall su ma sañoon fa Sénégal jaaroon ba tegu ci loxoom ci ay métti métti du fa jaar mais nag dafa xamul ne nguur bu bu la yàlla dimbaliwut da koy jàppe ak moomeel da nga dalay da bewloo te nag bew ku ne dafa am euh, ku yàlla alagoon ci ak mbewte muy xaaruuna ak na ay Namruus ñëpp ci mbewte ak doole ju leen yàlla jox ci la leen yàlla alage ma ko koy dawal nag mais nag moom xaw ma dafa am dafa jéggi liggéeyu jàmbur xaw ma dafa naan saafara jàmbur xaw ma waaye daal lépp lu dugg rek lu mu garaaw garaaw rek day dugg ci leneen ma koy ñaanal nag di ko wax mu ne delloo si xelam ndax dossier imam Aliou Ndao ba tey dama koy jooy imam Aliou Ndao fukki at ñetti at yàlla lañ ko tëj ci kaso bi. mu fa mu génn àddina. moom président Macky ba tey dégguñ mu jaale imam Aliou Ndao kenn ko pays yooyu dafa doon yoo xam ne dafa métti am réew bu ñu la ko dénkee ngay ay sénégalais dénkal ko ngay président de la ñu am ci yow yaakaar jël doole yëpp teg ko ci sa loxo da ngay war a xam ne doole ji nga yor. Mm-hmm. ay nit la ko dénk te ñi la ko dénk. Mm-hmm. ay nit lañ comme yow. d'accord. mais sëñ ba ci loolu sëñ Baye Mbaye MC Niass bi ni daw na euh, dem parce que ñu bari ñu ngi doon yaakaar que ni xëy na audio yi mu génnee la mais euh, wax na que ni euh, kii di Cheikh Bara yi toog na wax ni bépp kilifa bu toog ak baay Mbaye MC maanaam enregistré na la yow fi nga doon taxaw ni si Baye Mbaye MC dafa war génnee audio yi. Bamba MC génne na audio yi est-ce que parce que ni mu waxee dafa mel ni kay yore yeneen i yoo xam ne xëy na loolu moom moo tax ñu menacé ko mu daw génn est ni moom Bamba dafa waroon daw génn wala li mu def jàpp nga ni quand lu baax la pour que mu mën a wéyal li mu li mu bëgg a def. xam nga Baye Mbaye MC man su ma doon moom la man la ma waxoon rek laay wax dama ne su ma doon Baye Mbaye MC man du ma daw. Hmm. lu tax du ma daw mooy yow dëgg ngay wax te bi ngay wax dëgg kenn sexalu la ne da ngay xeex dëgg mais continuer sa xeex. mais moom nee na dafay yore loo xam ni bu fekkente ni moom général de guerre la euh, bu ñu ko euh, sàkkalee pexe. duñ ko sàkkal pexe ana Ousmane Sonko du général de ger mais mais mais de bul tëkkale bu tëkkale yu ñaar bokkul nag moom Ousmane Sonko bokkuñu de. léegi quelle est la différence. Ousmane Sonko waaw ah, ah Ousmane Sonko de ba ñu ko jàppee dañ ko. Ousmane de woon laaw moom dombas bu tàngala moom. waaw moom boo ko laalee moom. moo tax man la bul tëkkale. waaye nag waaye nag li may xamal leen daal ma dama xam ne euh, doomi Alaaji Ablaye doomi Baye Baye Niass. Mhm. doomi Alaaji Ibrahima Niass di am taxawaay bu dëgër di xeex dëgg maanaam la ma ko waxoon laa koy waxaat ay na ma takunu yudrikumul mawtu wala kuntum fii jën burujin musayyadatin dee kenn mënu ko daw donte da dem ci xurul lëndëm te du dee fekk bu nekkoon fii tam kenn du ko rey yàlla xam na loolu bu du dee te deewam jotut bu war te dee du dee bu warul dee du dee bu dee du dem te deewam jotut ab xeex boo ci nekkee da ngay nekk est-ce que du moom li mu yore la bëgg a raawale quand même nga li mu yore bu dee yore na dara li mu yore joxe woon na la ca des it nee na Marème Faye Sall mais xam nga man réew moo xam ne jabar ji day comploter président bay comploter réew mu mel noonu fa fan la Sénégal jëm bis bu sëñ bi dugal dégg leen ci ay bêtises doom yi di comploter nee na doom ji woo na benn jigéen ne ko saagaal Ousmane Sonko Marème Faye Sall woo na ko ne saagaal Ousmane Sonko loolu man moom moom réew fan la fan la réew ma jëm ba pare ma dégg président Macky Sall démb génn digg naan maa ngi sant sama jabar maa ngi sant sama sama nii mais sant jabar jabaram. ba pare jël doomi jawe jabari jaamur Ami Dia ak secrétaire suñu Assane Mbacké mu ngi leen tëj ci kaso bi te tëju leen ci kaso bi dara jigéen ñi mu tëj ci kaso bi sur huitième de la femme nga xam ne journée de la femme nga xam ne tey addina bépp dañuy màggal jigéen yow Macky Sall booba yaa nga jël doomi jaam jabari jaamur yaay jaamur xale yu ndaw nga jël ko tëj ci kaso tëj ko ci kaso bi ba fi mu toll nii waxoo moom lu lu jëm ci moom te lépp politique a tax loolu nga ne taxaw yow yaa ngi sargal jigéen yaa ngi delloo jigéen jigéen ñi toroxal jigéen ñi saraxal jigéen ñi ah, wala ñaari sénégalais dañu am kii ab sénégalais la àndut ak yow ci politique ànd na ak Ousmane Sonko yow ku ànd ak Ousmane Sonko donte góor la jigéen la danga koy toroxal danga koy ñàkkat ña xañ ay droit am ami ja nañ ko bàyyi ay doomam ay xale yu ndaw la ñu ngi jooy di jàng xale yu ndaw gisatuñ seen yaay booba yaa ngi bàyyi say doom ñu ànd ak may may sant Marème Faye Sall ak gërëm Marème fay sàll jigéen la ami ja jigéen la ngay dem ci huitième de la femme ngay jël jabari jàmbur tëj ci kaso bàyyi sa jabar di ko sant ko gërëm Macky Sall loolu waru la Amadou Dia may ko jàmmam ak secrétaire suñu Assane Mbacké moom itam defu dara ci oto lañ ko fekk jàpp ko ma nga ñu tëj njaayam jigéen ah bon à part suñu Assane Mbacké léen am na keneen ku ab secrétaire ak yeneen yeneen i juróomi jigéen yoo xam ne ñu ngi leen tëj ci kaso bi ay jigéen waaw te loolu dafa ñaaw kon nag yow da ngaa bëgg a sargal jigéen ñi ba pare di xotti war may jigéen ba pare jël ay jigéen ñoo xam ne nii politique dong nga tax nga jël leen tëj leen kaso naan ay force spéciale force spéciale da nga ne Amy ko xool ak ni mu yëwee ne Amy Dia yi ci ab force spéciale la waaye nag dama ko wax rek nga bàyyi xelam ci li muy def nit kii loo def lu métti métti rek dee ci bàyyi xel yàlla tey dawal yërmande ji nga xam ne nii doole ji nga xam ne askan wi la ko jox yàlla suñu borom jaarale ko ci yow ngay dawal yërmande te it di bàyyi sa xel ci ne. ngóor gudul ngóoru yàlla suñ borom dana ko nangu ala kulli alim maanaam Usman Mubarak moo ko pon doole frère bi Silma moo ko pon doole Tunisie kii euh, benn benn Ali moo ko pon doole ay Mobutu Sise Kadhafi ñoo ñoo ko ëppoon doole fopp ëpp ko kattan ana ñu tey te dana jaar fam fam jaar dana fa jaar man daal li ma koy digal na bàyyi ami jaar ak ñëpp ñu ñibbi d' accord ñu bàyyi leen ñu ñibbi voilà mi ngi noonu yéen a ngi seen émission bi di face à l' euh, fii ci